génnoon àdduna euh, fukki fan ak juróom-ñeent euh, weeru juillet atum 1927 ñu ngi ci weeru juillet 19 juillet bi ñu ko weesoo yàggul loola sabab waxtaan wi tey waaye ku wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sa xel day dem euh, ci àndandoowam ba maam Cheikh Ibrahima Fall ñaar ñooñu nag la ñuy euh, waxtaanee gannaaw kenn mënta wax ci kenn ki bàyyi keneen ki ñu am mbégte lool nag dalal ci suñu maam si la Baye Fall ñu bari xamee ko ca Masalikul Jinaan mu sax ci yoon wi lool macha allah euh, di taalibeem maam Cheikh Ibrahima Fall am nañu mbégte lool dalal la maam ci waxtaan wi dalal ak jàmm ci dem ak Tay ñu bàyyi la yi. di présenté wu rek bala ñuy dugg ci waxtaan wi incha allah. Oh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu waaw ah, bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu man sëriñ Sylla Baye Fall soppet maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridina jaar ko ci Cheikh Mouhamadou Fallilu Fall wuti doomam yi di koo xam ni liggéeyal sëriñ Touba ak sopp maam Cheikh di ko roy ak di ko déglu ak bu wootee ma wuy ji mooy sama dund soo ma dalalee tey nag di ma laaj ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak taalibe bu mag ba maam Cheikh Ibrahima Fall dinaa am mbég lool ndax kenn ko ci nekk rek li nga ci am nga nga ci xam. Mm-hmm. sëñ Tuubaa de su ko xamee noo ko amewul. dëgg la ku bëgg a wax ak yow ci sëriñ bi mënut a weesu lam ca am. Mm-hmm. ndax sëñ bi kenn xamu ko. Mm-hmm. dama wax ni ku dul yàlla dooru sulaay xamoo ma li dem ba yàgg mu ni ku dul yàlla aji bind ji xamoo ma. dëgg sëñ Tuubaa kéemaanu suñu borom la mm-hmm. ndax ki gën ñëpp la wuutu muy Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ku koy wuutu na la yàllay sàkke du bokk ak ni muy sàkke ku ko wuutuwul mm-hmm. leel Moustapha nawaytu maay jaddidu sunnatoo xalaaway ni Ahmadu sëñ Tuubaa moo ni cëpp wax ni damaa yeesal si sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kon ku bëgg Moustapha teggi ko ah gisuma la maaw gisuma la Tëngéej gisuma la Cees gisuma la Ndakaaru gisuma la Touba gisuma la Tiwaawan gisuma la Njaaréem. gisoo ko fenn daal. gisuma ko fenn. Mhm. ndax sëriñ bi li mu dafa waxaat ne bu dogoon ko nag jël si gi ma neen jël si ngir war leen a yóbbu aljanna du ma fanaan ci àddina génn guddi lam ca tegit mooy wane ne loolu ko ne mën na koo gëm man na koo xam man na koo topp bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiya ci la wax. Hmm. ku ma liggéeyal damaa jëlaat. ku ma sopp sopp xool bu dee dëgg ci yow di nga damaa ku ma jox sa wërsëg damaa jëlaat yett yi nag lu nit yambare yambare war cee mën a def leen ngir nga mën ànd ak sëñ Tuubaa di baal janna hmm. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax si la. sëriñ bi ak maam Cheikh Ibrahima Fall du ñaar kenn la mu koo ci tudd kañ ak si na dëgg la ndax sëñ Abdoulaye moo wax sëñ Moudou Aminta Fall ak sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ak kan wax sëñ Cheikh Mbaye Yaaram wax leen ni leen xam ngeen seen maam Cheikh Ibrahima lu ko andi àddinaam ñu ko déedéet mu ne tey jii laa leen koy wax te góoma ni mas ngeen koo dégg bi yàlla bëggee ko yu wutu yonent bi sallallahu alayhi wa yàllaa ne su xeet teg leeram génne ko muy Serigne Touba sëñ li ko wéet naa lool te bëgg naa laa liggéeyal liggéey boo xam ne kenn doo ko mos a liggéeyal yàlla ne su xeet leerab sëñ ko génne ko teg ko muy Cheikh Ibrahima Fall sëñ Saliou Mbacké mu jënd bii fi jógee bu yàggul nag dafa wax ne ñaar kenn koo dégg mu naa sëñ Bamba naa Cheikh Ibra Fall xamu leen ci sayer ñaar lanu wàllu ci bàccin kenn lanu mhm. kon boo ma ci laajee mhm. fi si sama fi si sama am toll mhm. sama xam di yem bi nag mooy xam jaam ñi doon na am murit doonal tijaan doonal laayeen doonal ñaseen doonal ibaadu doonal lu la neex waaye na nga fexe ba sopp sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa nee na yàlla comme xal sa xol fekkuma ca mbañeel na ci yow di nga dem sawara mhm. sëñ bi ku ni sopp la ku ni bëgg la daam jaay waxkat wa da daan wax ni làmbi sëñ Bàmba ma ne sa tëj ci kawum lalam um làmb ja ñun ko loo ko mu ñu bëgg rek sëñ Tuubaa boo ko xisee sopp ko sopp goo xamante ni yàlla rek tax ndax dogal yàlla la te am jaam bu gëmee yàlla wóolu ko lu yàlla dogal da koy neex sëñ bi des koy bëgg di ko topp di ko déglu di ko jëfal ndax damay wax ni jullit bu doxee ab taalibe la murit bu dox ah jullit bu dox murit la murit bu dox Baay Faal la jullit garab la taalibe matt la murit këriñ la Baay Faal dóom la garab les koy gor matt lay tàkk këriñ lay boy waaye doom day sayu xal mooy murit bu murite mhm. sëñ Basiru mi raw bi ndeef bi daa wax Baay Faal al muridul kabir la daan wax nee na sunu maam euh, sunu baay Cheikh Faal murit muritul sëñ Tuubaa bu mag ba ndax jullit bu mag mooy taalibe taalibe bu mag mooy murit murit bu mag mooy Baay Faal mhm. yaa ngi may dégg maa lay dégg bu baax sëñ Amdi Xadi surtout Cheikh Rafaal la sëñ Asan Faal la ko meññ mhm. sëñ Cheikh Jëmbu sëñ Sa Faal la ko meññ sëriñ Cheikh mbool Fall sëriñ Aliou Fall Mbawal a ko meññ boo limee sëñ Bassir Fall alxuraan ñoom duñ doone Cheikh Ibra Fall ay sëti Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall hmm. boo toppee seen mboor topp seen bëgg topp seen dox topp seen jëf da ngay defal ñi ay doomi Cheikh Ibra Fall lañu hmm. te loolu matu Cheikh Ibra Fall moo jël ay doomam roos ci ñoom sirru boo xam ni buñ jëfee muy kaw téef buñ waxee muy kaw téef buñ doxee muy kaw téef lu leen sëñ bi sant danaa ko def baa ma dee te dinañ ko def te doo dee ndax ndigal du jar bakkan mhm. garabum ndigal nag damay wax ci mooy meññu doomum ngërëm mhm. ku jël feeg ndigal di am ngërëm di am bu ndigal noppee am ngërëm dootu am mhm. te maam Cheikh nee na ku xamal li ci ngërëm bala ngaa sàkku dara ci àddina sàkku ngërëm ba am ko ndax ndigal moo nu andi ngërëm a ni delloo bari nga ko faatu nga ni dem na demul ndax amul ngërëm Ousmane juróom-ñaar fukki junni ñu sawara yey lay dëpp yóbbu leen àjjana te ngërëm la am te ngërëm du xottiku du xumaag du dee ba fi ko am ngërëmul yàlla boo ëllëgee sa askanu kër ndey sa askanu kër bàyyi say bokk say am di jàmm say xarit wala leen si ñu leen yóbbu te yàlla du leen di déet ndax loolu la mayal Ousmane. Mhm. ak lan. waaw si la ku wax euh, Serigne Touba nag tey sa xel dafay daal di ñëw ci digganteem ak tubaab yi daanaka dundam gi lu ci bari ñoom la ko jàmmaar lool ndax ñoo fi ñëwoon bëgg ñoo noot. moom mu taxaw bëgg a taxawu islaam waaye itam xeex nooteel googu kon boo ñu mënee ñëwal ci dundu sëñ bi ak tubaab yi seen jëflante ak la ca aju yëpp exil ya maanaam jëlee ko fi yóbbu ko feneen bundu xatal gi lépp ak taxawaay wa mu ca amoon. xam nga sëriñ bi daa daa wax ne bu leen foog ni mukk dan maa jàpp tubaab yi ay mbaam la nu ma war tukki yor samay bagage sëf leen ko tukki ñëw jéggal leen xam nga bi mu ñëwee def ni daay tëral. yaa ngi may dégg fi fi mu jaar ñoom bu doon naqar du leen jéggal dafa am lu ko yàlla santan am lu mu lu mu ca warloog moom te ginnaaw yàlla ànd gi mu ànd tubaab bi juróom-ñetti at yu mag ñaar ñaari weer moo tax mu jot ca moo tax mu jot ca liggéey boo ko mënta ñàkk liggéey ngir am loo am ka tax nga liggéey ko doo ko mere tubaab bi jàpp du woon sëñ bi sëñ bi leen jàpp. ndax daa am nañu sëñ Tuubaa jigéen woon ak yàlla te tukki bee ko koy may yàlla xeer Tuubaa bi te ñu jël sëriñ bi yóbbu ko waaye sëriñ bi nag ah mat naa mat naa mat naa càmbar de hmm. fital nan ko takk nan ko ci garab juróom-ñaari affiche fital ko tërnoon ko di xarum Tabaski ren di ko bu gas doon ab teen fanweeri mètre xam na ko bis ba bis ba def si ñu ko jox suul ko julli na ci ndox wéetal nañ ko foo xamante ni mel euh, sangleen ya ko doon war tool ne ay kuróor te lu sañu ta faxasu maanaam lu ma sa def ab yonante mu nelaw def nañ ko sëñ Tuubaa mu ni ko tilimul furwaasewul néewul fu ngeen ma jëmee néewul kañ laay wàññiku bi mu ñëwee la mu dëkk wax mooy déggal naa leen kooku nag ku jamononteeg moom wutoo xam lu mu doon wutoo ko sopp wutoo koo liggéeyal sab xel baaxul xam nga looy defaram xelam hmm. ndey ju baax xel mu rëy ca rafet day wecci wàlliyu xel mu rëy ca ñaaw day wecci saytaane ndaw lu bari bëgg-bëgg te nu wutal liggéey day wecci sàcc màggat gu nu ngoo tutal lekk day weccim néew kilifa gu bari waxte amul xam-xam day weccim dof baa dégg nga ma bu baax Sëriñ Tuubaa li mu doon xamunu ko wala sun tawfiixa jombunu ndax mun la am moom la nu am ndax moom lan dajeel wala xamulu ko nit dina am lu xamul wala du ko jomb sëñ Tuubaa jombulu wala xamulu ko mu doon baa xam nga ne ñii ni tudd tudd sëriñ bi mm. bokkul ak sëriñ bi nun fi ñëwee bokkul ak bi nun delloo mm. gaañi ay sëriñ lañu sëñ Tuubaa kéemaan la sëñ Tuubaa du sëriñ de mm. kéemaan ak sunu borom la sëñ Tuubaa pëndam sëriñ xanaa xam nga ne man sama bi sëñ Tuubaa yi ñëw. Mm-hmm. jeexal na téere yi. doole baayam jeexal na téere yi ba tudd tafsir boobu si la. Mm-hmm. man sëñ Lamin si sama maam tafsir la bokkal baay tafsir nag dugutul Babacar si la la tuddoon mën a jàng tax ñu ko doon wooyee tafsir. Mm-hmm. te bu daa boole jëmmam ak i téereem dem jébbalu ci sëñ Tuubaa sëñ Lamin si la sama maam dem jébbalu ci Seex Ibra Faal. yaa ngi dégg. bu baax maa ngi lay dégg si la. bu ak ci ñu doon tee jébbalu sëñ ci la tafsir du jébbalu. waaw ndax ñoom ay sëriñ lañu. waaw dégg naa la ak ci liñ fi la ko sëñ fekk ak murit la fi sëñ Tuubaa mhm. ak murit sa gën a woon ak cëriñ murit dëgg-dëgg mooy ko nama dem ca yàlla mhm. murit mooy ku jébbulu dox saadix mooy ku dëggal mhm. dama laa wax ni la jullit garab la taalibe matt la murit këriñ la saadix ab doom la mhm. daa xam nga doom dootu boy waaw doom day jeex na moom te day feeyu xal mhm. mooy murit saadix bëggul aji na ragalul sawara sëñ tuwaa doon rek ay doon yitteem ak i ndigalam mhm. ku ko doon ku ne bu ëllëgee boo amee ngërëmul yàlla sa yoon du ne ci bàmmeel sa yoon ne ci munkir sa yoon du ne ci nakkir sa yoon du ne ci dara lu yàlla mi la def murit saadix Cheikh Fall dafa wax ni bàmmeel jër talagal la ab jaam la dee jër talagal ab jaam la dekki jër talagal ab jaam la munkil jër talagal ab jaam la nekkil jër ragal ab jaam la ragal leen yàlla jàng ba xam jaamu ji baa ngeen wut umal man liggéeyal si Bàmba yàlla moo ne na ngeen ma jaamu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wax ni na ngeen ma roy mhm. sëñ Bàmba ni na ngeen ma liggéeyal yalla ku ni jaamu la yeneen bi ku ni roy la sëñ Bàmba ku ni liggéeyal la Cheikh Fall liggéeyal sëñ Bàmba la def ba raw naka justement la ñuy liggéeyalee euh, sëñ Bamba mi nga wax léegi. xanaa dégg ndigalam bàyyi tereem bu la woo nga wujj ko bu la laajee nga jox ko. te loola ci yoonu murit saadix la lay teg. waaw boo koy def rek mu yàggee nga doon saadix saadix mooy lu ko di lu ko sëñ bi digal da koy neex lu mu ko aayee du ko laal. Mhm. leer na daa jafe daa jafe de. Mhm. si la wax nga sànq loo xam ne euh, njoxtu naa ne jar nañu ubbi tuuti parenthèse ndax wax nga euh, yaay ju am xel mu rafet ak jigéen mel na mu war a mel. Euh, mooy jigéen jigéen. waaw. ku jigéen jigéen la tudd. Hmm. bu dee liggéeyal boroom kër mi ngi ji. waaw boo amee doom ji sax na. waaw bu màggee rek maa xam gàncaxam xam nga gàncax. waaw. waaw boo dee liggéey sa borom kër yaa ngi ji. boo amee doom ji sax na. boo continuer liggéey bi yaa ngi béy. Mhm. bu yàggee rek nga xam sa gàncax lu muy lu muy meññee. bu ñu màggee. waaw bu sa doom ñu màggee rek nga xam sa gàncax. Mhm. léegi nag xanaa xamoo ne mhm. doom. waaw amul lu ko ndeyam joxul. yàllaay joxe waaye ci loxol ndey ndey lay jógee. jaar dëgg la. bàyyi bu dee joxe ku sa yaay lu doo am. dama wax ni jigéen bu woyofee toy doom ja diis gan bu sukkee ni mot doom ji ni gileem. bu borom këram dee wax mu déglu bu nafee mu jëfee ko boo liggéey bu doomam dee wax ñëpp a koy déglu. Mhm. koo dégg mu ne asalaamaaleykum ñu ko may nu waatal ñu mu bàyyam day wax du ko may. Mhm. kaddu. Mhm. bàyyi koy joxe wala yaay koy jël jox doomam. koy joxe wala wërsëg ndeyee koy joxe. ku sa ndey nangu liggéeyal sa baay nga am wërsëg ku sa baay gërëm nga am barke. maam Diarra Bousso de laa bëggoon ñu yegsi ci moom ndax lii nga fi wax yépp moom gis nañu ci bu baax liggéeyu liggéeyu jigéen ñi waaw jigéen ñi Amina Aminata ci gën bu weesoo maam Diarra ci mm. mm. gën ci jigéen ñi bu weesoo ci jigéen ñi xanaa xamoo ne bu neen yoon Aminata rek yonent bi agsi na mm-hmm. bu nee Porokhane maam sëñ Bamba agsi na waaw sa karosu bàyyi faa si guddi gi xaajee ñu ni sëwru maam say njaay ana seeni bàyyi bàyyi day gunge bu sonnee wàññi ko ku sa ndey dem yóbbu la ku dem yóbbu sa ndey tur yàlla ku la ko jox sax bu dee jëmàkkee boo wet dee doo ami jaaba xanaa xam nga góor aw jiwu la jigéen ab tool la ko la gënub tool gën law jiw moo la gën gàncax leer na ko rafet bu tawee ba tawee nga dem ci ab sëm ji fa muy taw ngay béy doo am gerte doo am ngooñ. Mm-hmm. ab sën baaxul waaye tool ba ay nag tëdd ba mu saf-saf mu taw ba tooy nga ji ca lool di béy di nga am gerte am ngooñ am dugub wala bële nu tey bu ñu ñu nga bato bis ni rabbin jigéen ju baax muy am doom ju baax. Mm-hmm. waaye nag góor wàllu yu boobu soxlaam sax mun a am doomam. dëgg la yu. Mm-hmm. boo demee këram fekk fa ñeent fukki doom seeta ku gën ndey yaa gën. jamono ji nag li ko yàq mooy ñëpp dañoo jóg wut ci àddina te ko am yàlla am àllaaxira am àddina waaw bu ñu dee wax wut àddina wutal yàlla ndax yàlla boo ko xisee am dara dootu la jafe dëgg la dana wax ni ngërëm boo ko xisee am mhm. loo làmb mu nooy koo gis lu mu làmb mu dëgër na wuti ngërëmul yàlla mhm. ngërëm nag aw ñaas la sol mu du dindi mhm. maam jaara nag yaa may dégg. waaw maa ngi lay dégg si la. fi mu jaar ak maam Mor Anta Sali ba andi sëñ Touba. Mhm. kenn dootu fa jaar ak borom këram waaye nag ku ko roy am lu baax de. teel mhm. na sa njaaw sàkket sëñ bi ni ko ma ñëw dugg ca ba fàtte ko ba falaale faa taw te ba bët set sëñ bi bi bi la noddee sëñ bi génn yeesalaam jàppam la ko fekk mu téye sàkket bi taxaw. yaa may dégg. waaw keroog la ko maam Mor ni ko doxi taw bi mhm. sunu borom dina jox mbooloo mu ni toll. Mm-hmm. yàlla mayewul de day day day fay bor mm-hmm. waaw yàlla lu mu def lu ne lu bu réyee da seet lay day ba boo ko xoolee xam ko mm-hmm. waaw ku la gën dayee la gën ku lëpp ngërëmul bàyyi lëpp barke xam nga luy barkeel barke boo ñu ko mënee tekkil de ñu jël ndax suñu wolof moom tey ak li ñuy eh, am ci dégg-dégg néew na euh, barke mooy xaar ak nag mm. ñàkk barke mooy muus ak ginaar ak xaj muus fukki doom ak juróom-ñett lay jur ñaar fukki doom xaj noonu ginaar juróom fukki ginaar lay jur <laughs> mosoo gis cokkaloog ginaar mosoo gis cokkaloog xaj mosoo gis cokkaloog muus barke ci amul. Ah. xar benn lay jur li jur ñaar bëriwul nag benn lay jur te màgg gi gaawul. Hmm. xool lay dee ci màggal dee ci gàmmo dee ci dëj dee ci xawaare dee fan koy peese xool lay dee ci ki dee. ci ngeen waaw bindee yëpp ku judd xale lay tudd ku dee naka lay dëj mhm. xool li ñuy xar ci dëkk bi rek. ci tabaski gi ñu ñu dëkkmal. waaw xool li ñuy xar ci dëkk bi boo demee Fuuta noonu la demee nga dem Bawal noonu la demee nga dem Kajoor noonu la demee fenn fu ne xayaa nga fa mel ni saqal la ni te daaw daanaka xar yi jeexal na loolooy barke. barke mhm. lu mu dugg doon. dégg naa la mhm. dellusiwaat ci Serigne tubaa euh, ak tubaab yi fi nekkoon noon ñu gis nañu ne lanu ko def yëpp njëggal la mujjeeg ñoom déglu ko dara sax yaa ko pare ma nga naa nga kon a teg loola kay doo ko mere waa mhm. du nit bi mu ñëwee. Mm-hmm. ci la wax ne xidmat fu ma liggéeyal am na bindu daa nga salo bokkut ak sëñ si de. Mm-hmm. xam nga luy wérdu salaat bi baaxee xam nga. déedéet. kon la ko ñu wékk na buum xëj na boo neexee ma man ne xarum yàlla su duggee nga dugg boo nee kër kër yi ne xarum cookal boo ko wékkee moom mi nga ko wékkan dem na yow mi ko wékk yaa fa des. Mm-hmm. xam nga luy jébbalu. déedéet ku jébbalu dëgg doxoo sëñ bi la gàddu. kenn du ko weddi nag Cheikh Ibrahima Fall. waaw ak Cheikh Issa Dieng nag si Issa ñoom. ci tànk si ñu dañuy dox de feek sëñ bi dox ñuy dox te sëñ bi moom du taxaw feek amul lim bëgg mhm. ndax dañ koo jox ba seen jëmm yi ba mu jeex tàkk sëñ bi yoral leen seen lépp sëñ moom àttan na àddina ak àllaaxira boo gisee murid yi seen xel daal yaa ngi may dégg bu baax du seenug jaamu de hmm. seen diggante sëñ Tuubaa rek a tax suñu xel yi dal de yàlla mun ko mënul koo defal dara li jëm sax bu koy def du baax waaye sëñ bi leen yënk rek sëñ bi nee na tawat su ne nit indi la ma ko ba mu des seen diggante ak seen bàmmeel te sëñ bàmba ngeen fa yaakaar te yaakaar ñu du tas mhm. loolu daal la demee waaw foofu def ñuy euh, indi ci diggante euh, maam Borom Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall fan la tàmbalee xanaa ca Mbàkke Kajoor yoonu murid Mbàkke Kajoor la juddoo màgge njaareem siloore Tuuba sëñ bi bi mu siloore mooy bi mu jee yàlla fab la mu yor jox ci mudu Musaa mu séq woo ki nakam ba nin ko jébbale Alaaji Baara Mbàkke Kajoor maa mhm. xam nga ne Seex Ibra Faal wax naa yàlla ni Musaa kàllaamu laa te jébbuluwul hmm? ah Musaa Ka ko wax te wàllu yu la du wax lu mu xamul sëñ Musaa Ka waaw mas xibaaru jébbuloo bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe maanaam seex na ci ndigalul yàlla lu jóg di seet Sëriñ Tuubaa bi mu ko seetee ba gis ko ku jógati seex rafaal nga roy waaye kenn waxu mu ëpp hmm. xam ne ñaari wàllu yóbbu gënal ci réew mi hmm. seex Fuuti ak seex Ibra Faal seex Omar Fuuti moo hmm. déclaré sëñ bi di ko wër ba màkk ñu lépp ku mu ñëw Mbàkke Bawal gis ko te boobu sëñ bi gëniwul àdduna de leer gi la doon topp jox baayam ab téere ni ko bu ñëwee nag ma koo joxal maa ngi dem du ma fi fekk bi mu dundee baayam ba ko ñaanal ko war a woote Cheikh Rafal la ne ni waa ngi nii kii yéen dina ñëw kii yéen di agsi na daa yaa may dégg. bu baax si la. Cheikh Omar moo ne sëñ bi dina ñëw bi mu agsi Cheikh Rafal ni agsi na. Hmm. te Issa déclaré woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul bàmmeel Cheikh sëñ Bamba amul bàmmeel. xëy ne ko xabaar ga mooy xiisa rek xiisa ak xabaar ñoo bokk lu leen di bindee. Mm-hmm. kee déclaré Moustapha amul bàmmeel kee déclaré Xadimu Moustapha amul bàmmeel yàlla lay def ay tànn sulaat di feeñal mbiram te ku sa yoon nekkul doo joxam dara. Mm-hmm. sëñ Tuubaa amul morom xanaa xamoo ni yoonu murit. moo mm. leen tànkee ne ci mi ñoom la ñu roy ba ñu ñi ñu leen di tege ca di leen di xaalis aka sant aka gërëm wax ci ñoom mm-hmm. njabootu suñ tubaab loolu rek waaye loolu xewul ay jàngalekat wax loolu nga woon mm-hmm. a fi indi lii de ñii ne ci kaw ñii ne di leen tawal aka ne ci kër kër mm-hmm. sëñ Bamba laanu sëñ tubaab laanu yor moo tax ñëpp di ay kilifa de waaye lii xewul woon jàngale alxuraan ak bàyyi rek mooy ci lu ne ci lu baax Bamba fi indi lii ku ko sopp na ngaa bay di maa la wax man. Mhm. yéen a ngi teew démb ak tey ñu dalal si la bàyyi Fall bu Massalikul Jinaan di waxtaanee euh, maam Cheikh Ahmadou Bamba fàttaliku génnuk àddunaam fukki fan ak juróom-ñeent weeru juillet atum 1927 euh, waxtaanaale itam euh, ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ni mu ko waxee kenn la ñu dunu ñaar kenn mënta wax keneen bàyyi ka ca des si la wéyalal. li nga laaj ci tukki bi. Mhm. Serigne bi Massalikul Jinaan ci la bokk. néeg bën ko tëjoon mën tawul ma ko mm. yi di ko jam yàlla fee ma saalik <coughs> mm. bi yàlla ko deelal yu toll nii mm. ñu denc ko ci xolom Ndakaaru li fi jóge li jóge Masaalik dem pare moo fi jóge dem Padoa Kër Sëñ Fallu baa xamoon ne jumaa ji moo nekk ci ligg Ndakaaru mm-hmm. ñu denc ko ko fi kenn tu mu dem ndox ak barax alaaji baara jàmbaar ji bi ma amee ndigal ci sëñ Saalihu jóge ca barab bële ñëw ma Masaalikul Jinaan wax Mbàkke Fay ni ko fii la ñu leen fi jullee tabaski yàlla fukki fan ak juróom ma mangoo sëkk xam amul af rek ñaar yaat yu màcc gaa alaaji Mbàkke jàmbaar ji def ko loo xamante ni képp koo xamante ni amoo pas-pas amoo bëgg amoo xol bu rëy amoo yéene bëggoo lu baax jëmoo àjjana doo ca ànd baa dégg nga ko waaw mel jumaa yi Masaalik amul ci Afrique dërëm dërëm newu ca ko murid ko tabax hmm. am na fi jumaa yu am fanweeri at àggul am na fi am ñi fukki at àggul i wàllu ndax yàllaa ko jox sa juwa daa am moo mhm. <coughs> wax ne yàllaa yàllaa man yaay wéeru waaye bi du daanu ku wéeru ci yow du daanu macha allah amana ni rabbi mhm. bi am jaam ñi ku wéeru ci du daanu maa ngi baax nag di gërëm te maa yow waaw alaaji seen mhm. at ya bëriwul lool waaye pas-pas ba rëy Cheikh Alassane ñu koy nuyu au passage waaw. waaw Cheikh Alassane Sène. Mhm. at yëpp bëriwul wala pas-pas baa rëy. Mhm. dëgg la. ku bëgg Rasulullah yi ba sey ci moom la. alayhi mhm. boo boo toogee fi moom boo ko nee boo nee tudd Moustapha sallallahu day tiit saa woo ko tuddee mu julli ci moom. baaxal waajur lool. boo ko waxal ne ko nga ak teraanga bokkul. teraa nga ci poos lay nekk tedd nga ci jëmm lay nekk yow yàllaa la teral mm-hmm. ndax foo dem bokk bëkk dem mu julli see masaalikul jinaan mm-hmm. bi mu taxawee ci bunt bi mm-hmm. mooy danoo riir wut si ko ni ma kii kan la man leen kii ne ku bëgg rasulullah yi kuy roy sëñ Tuubaa la ku bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku bàyyi see nee na ginnaaw yonente bi sëñ Tuubaa rek laa doxal sama diggante ak suñu borom daa may dégg bu baax si la loolu nag day nag baax di ko am njariñ Mm. am na wërsëg am na njariñ ci bindeef yi te sëñ Fall dafa wax ne yàlla ko di topp la wala jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mm-hmm. Cheikh Alassane daa am njariñ mm. moo tax muy sabab xarit ndax man nit boo ko bëggee di ko yërëm mën a dem nekk ko ëpp ko doon yërëm ko tane ko dimbali ko di saab xarit man nit yi sama yitte man sëñ si la Baye Fall mm-hmm. maa ngi sant day gërëm jërëjëf Sylla ak leneen loo laaj rek bëggoon naa nag ñu ñëw ci Serigne Touba ak Mbinda yaakaar naa ni daaray kaamil ba ca Touba doy na firnde ci ne sëñ bi moom li mu fi bind bàyyi mënee su koo jeexal. dama laa wax ni la yaa may dégg. waaw si la maa ngi lay dégg bu baax. sëñ Touba mooy alxuraan. Mhm. dox. boo boo ko fekkee ci ci temps mu tontu la mhm. ji ñu bind di ko jàng bokkut ak alxuraan ji sëñ Touba doon. sëñ Touba mooy alxuraan. alxuraan ku ci mën a génne sept tonnes cinq cent kilos ak li nga suuxal ak li nga gas suul yow yaay alxuraan nit ñi amul xam-xam te ñàkk wax ak ñoom day indi bàkkaar nit ñi amul xam-xam sëñ ci waay alxuraan yaa ngi may bu baax si la. sëñ ci waay li mu def ci alxuraan bi alxuraan ci ak tey ku yàlla bind yónni la mosoo ko cee def lim xam ci alxuraan kenn mucc mosu ko cee xam. lépp xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ko ko ci tagg kenn mësu ko koo defal noonu leen dal du jàmm bëgg gëm ñu njëkk wedd ñu mujj baa xam nga ne yonent bi mujj ñëw te moo gën yonente yi mhm. alxuraan a mujj ñëw moo gën téere yi dëgg la sëñ Bamba mujj ñëw moo gën kudur rasulullah Cheikh Rafaal a mujj ñëw moo gën ñu daan ñu doon toppe ñëpp yaa may dégg bu baax sëñ saa yi bi mu toogee doole yi mboolem doomi sëñ tuwaay yi la boole toje ko xel ko yaa ngi may dégg. Mm-hmm. sëñ bi gënul ñëpp waaye moo mag ñëpp. Mm-hmm. waa xam nga ni sëñ Saliou mam ñëpp ndax doole ñëpp la yoroon. Mm-hmm. bi ñëpp demee leneen wutu yor seen doole xel ko def fa fukki daal ak juróom daal ju ne ñetti téeméeri du fukk ak ñett trois cent treize. fekk mu am fukki daara muy trente deux daara yaa ngi may dégg. waaw douze fi bàyyi gërëm vingt muy trente deux mille. ku toll sëñ saali woon daa mos a ñëw àddina ñii nit ñi dañoo jom loo bëgg ci yàlla mu ne ko ku la bëgg nit yàlla mooy bëgg yàlla waaye nag mënoo dara nunguloo ko man dara foo amee dara du yomb de doo am boo mënul dara ngay bëgg ko dara si ko ndax mu jox la ci dara nga dara maa la man leer na man ba ñu ma kenn bëgg jàmbaar mhm. sëñ tubaanu kenn bisimilah. yaa may dégg. maa ngi lay dégg si la. alxuraan a mujj moo gën yonent bi mujj moo gën ëpp sëñ Bamba gën moo mujj ëpp. Seera Faal a mujj ñëw moo dàq topp ñëpp sëñ Seera Faal mujj ñëw doon ñëpp yor doole kukke doole kukke genn doole mosu toll toll doole sëñ Saliou. Mhm. man sëñ si la bàyyi faa naa ko wax te ragaluma ko yori nopp. sëñ Saliou amul morom Moustapha amul morom sëñ Bamba amul morom. alxuraan amul moroom Cheikh Ibra Fall amul moroom mm-hmm. sëñ Saliou li ko may xaas dafay mujj ñëpp la tàmbalee sëñ Moudou Moussa Mbacké laa ba ci sëñ Moutala ñoom ñëpp moo leen doon. Mm-hmm. damay dem la ko jox Alaaji Baara jàmbaar ji ci xel mu rëy mi ci may gu yaatu gi bëgg sëñ Fallou ba seey ci moom sëñ Fallou moom Alaaji Baara moom. Mm-hmm. mu ne lii ma yor ñi ko yor ñi ko mooman dem nañu ñëw leen ñu seq waxtaane ko jaaraama Alaaji Baara. dafa Cheikh Sidi Maxtaar jàmbar ji wut ko hmm. mooy muté tranquille ëpp ñëpp wërsëg yor kurusu junneem am ijaaba di ñaan yàlla di ko nangu mu yor kaamilu alxuraan du wax du dem te lu mbëgg mu am moo tax jumaa ji di jox ko rakam sëñ Muntaxa mu yeggale ko bind ko yàlla fi yàgg ci wér amiin sëñ Muntaxa nag géej la melow sëñ Fallu la yor ku gaañ ci moom yaa gaañ sa bopp waaye sëñ Muntaxa du gaañ kenn waaye géej nag boo xuusee te taxaw bu yàggee nga lab borom mbégte koy sëñ Muntaxa man yoon wi laa xam yoon wi ma. <laughs> leer na si la leer na. waaw maa ngi ñaan suñu borom mu defal la jàmm te defal na ko. amiin si la. xanaa xamoo ne euh, wàllu yi. Mm. sëñ Muntaxa ci gën a jaramoo ak sëñ Murtala Mbàkke ak sëñ Fallu. Mm. du la li déet waaye nag da ngay muy sedd rek. nawet nga ni sa yuux. sëñ Muntaxa. Mm. ku gaañu ci moom yaa gaañ sa bopp wala gaañ kenn. waaye ku ko gën nekku fi nag ngërëm yi mu bari bàyyam yëpp ko gërëm wóolu ko ku dem moo la jullee ginnaaw si ñëpp du xaajir mu dem ay magam toog mu def leen ni ay baayam def leen ni sëriñ def leen ni mag laxasaay topp leen lu mu jox leen ba xëy di sëñ Bàmba ku ko topp la ngaa goree di woyof lool itam moo gën ñëpp rek mhm. daa woyof tabe waaw nu ngu nu ngu kilifteef mhm. ko joxe mhm. te moo raw ci réew mi ba xamal nga loolu. Hmm. sëñ Saam la loolu yéemul xam-xam muy sëñ Muntaxa raw te sëñ Saam moom ku doomi sëñ Bamba nu mu nu nga raw ko. si la bëggoon naa nag nga may tuuti mbokk baay Fall yi ci maam Cheikh Ibrahima Fall. naka waaw maam maam maam Cheikh na moom laay dund boo déggee sama kàddu ak sama dund. leer na looloo tax ma woo ci loolu. ndax ah. bari na tey ndaw yoo xam ne ñu ngi topp ci yoon wi waaye xëy na du ñëpp a mel nan war a mel. loo leen di loo leen di soññ ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak nanu ko war a toppee. ndax sa ndax sa bopp moo raw poj. Ah. maam Cheikh ku koy roy. Ah, da ngay ba xam suñam di xadi. daa nga xam suñ Cheikh jëmb ak ñooñam. xam suñ fanum suñ mu doomi xam sëñ Cheikh ndigal mi nga xam ni ma nga takki million toog ko sëñ Cheikh Mbacke gii ci Colobane fas yéene koo yeesal ba mel ni sëñ Moustapha am sëñ sox soxna loo bëgg toog naa fa mu génnee fukki million jox leen ni leen tàmbali naa démb génne na ñeenti million jox leen nee leen fee mu yegg lu ma yor jox leen ko koo koy bàyyi faal ba yaa koy dégg bu baax guddal kawar ak yooyu yëpp mën na cee bokk de waaye day am lu ko lal hmm. Cheikh Ibrahima Fall dafa wax ne yett laa jàpp baraaw ñëpp te du ma ko bàyyi ñun ko daan mën a tudd yàlla liggéeyal Sëñ Bamba toogu ñam joxe lu nit di laa ilaaha illallaah liggéeyal Sëñ Bamba bu ñëwee ci gën baa dégg nga ma. waaw kon Baye Fall day nangoo liggéey. day nangoo liggéey tey joxe addiya tey bàyyi tey di jëfe ndigal. Mhm. démb boo gisee xale si ñam di xadi yi mu ñëw sëñ Muntaxa mhm. man ñetti téeméeri xaal ñeenti téeméeri xaal mun a jar na million te kat si ñoom di xaj li ma ci jaaxal yaa mooy dégg. waaw amul kër de. Hmm. ci kër yi baayam yi la dëkk de kër gi maam Touba ya néegi ñax la bu bu dee taw day seen hmm. te ay ndogu rek cent vingt millions la ko toggee moo koy rakkam ak i taalibeem te du xalifa de xalifa si ñaasal faala si Seex jëmay xalifa si Arafaal. te loolu de bu doon na jaa am kër yu bakkane macha allah. nga mu andi na ay tool la yombal xiyaamu dëkk la lu ma tabaxi tool bàyyi bés lu ma am rek fële daa ko yóbbu. te dem de ma ko wax. xanaa xamu ni Baye Fall gi rek laa xam man. Mm-hmm. ah waaw sëñ Cheikh Ndawal ba ma yóbbu xaram ñu di ko yéem daa wax ni naa yóbbu xar rek boo amee ceebu kejjeex sax baax na. waaw mm-hmm. ah, loolu yombul seen soxna si yooyu itam. dëgg la. yombul Cheikh Ibra Fall moom euh, yaakaaram ci sëñ Bàmba la yem te sëñ Bàmba lim yor jeex. dëgg la si lan mooy cosaanu ma euh, Madial ak soloom ci yoonu Baye Fall. xanaa la ca daara jëy liggéeyal yàlla bu añ jotee nga dem Madial añ mu lew la doom nga dellu liggéeyal yàlla bu ko defee la am sakkan. Mm-hmm. xam boo yalwaan boo euh, boo yalwaanee ban la. Mm-hmm. lew la doom la ngay liggéeyal yàlla nag ci yow lay des. Mm-hmm. waaw Madial moom ñi ko daan def mooy ñi daan liggéeyal yàlla ca daara tëdd yi maanaam Madial di def ci sa bopp ak Madial di foyee Madial di ko doxaaneeg yooyu yàggu taxaw di. taxut ñuy wax. déedéet déedéet déedéet ñu daal bu ko yàlla joxul la ko war jox. Hmm. bu ko neexee yàlla waan def ci boppam. Hmm. ci lay sax dinaa moom yool yow mi Madial it yàlla dina la yool. Hmm. maanaam yii xew léegi de yàggu taxaw de. maa xamal ñu bare bare bi sëñ Cheikh Fall Baye Góor di dund sëñ Cheikh si si la diwaan di dund mhm. sëñ Basiru Gueye wur koñ di dund waawa yu bare bare yi xewul la ñoom dañ daan duma ay Baye Fall lan woon yoo xam ni ku leen tooñ ñu duma la kon fekk ci loo lu yàq jarul sëñ Tuubaa ñu duma la mhm. waaye yoon wi doomi sëñ Tuubaa yi dañoo jeex ñaamal xadar jeex ñu bëgg noo yàpp te kat maa mhm. xamal ni yoon wi yoon wi Sénégal Hmm. ah sëñ Fallou ko waxal di moo ne woon man maay Sénégal la waxal hmm. ñu ko tax mu ne juróom-ñaari nit yoo fekk ñu toog bu ma wootee juróom ñi ñëw. dëgg la. sëñ Mountakha mooy Sénégal bi. Hmm. bu ne woon bu subaa na ñëpp ñëw Touba. yaa may dégg. bu ne woon dama leen a soxla Touba yéen yéen murid yëpp. bu subaa nga xam ne sëñ Mountakha Sénégal de. Macky Sall mii lay sëñ mu taxaa ko jox réew mi ndax bu dee woon Mouride bu ko kenn sànni laaw carte hmm. du gañe de Macky sëñ Saliou Mbacké kon du gañe hmm. waaw ñu bëgg nga wax ñu tuuti nag ci Touba ak euh, ni ko sëñ bi sañcee ak Touba tey ni mu mel bu nu ko méngaleeg démba euh, li fii sëñ bi bàyyi woon. xanaa xamul ñaari buntu rek am bee nga penku bii nga saw. Hmm. sëñ Saliou ne loo gis Makkatal Mukarrama ak la ko wër ba Madinatu Munawwara ay tànk la yor di dox rek ak siwul Touba Njaareem du taxaw da ngay wax Makka ak Madina ni Touba Njaareem Makka ak euh, Touba ak leerati mm-hmm. anna baytullahi haram tarfaw ila Touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lafa lafa lafa ak Madina moo ñëw Touba moo tax tubaa màgg gi gaaw xam nga ne Touba Touba dépôt secret la bu ko teg néeg yéeg tabax yeeg cër yeeg yooyu mbóot la mbóot la xanaa xamoon ni mbóot fu mu nekk ba bëgg a ruur na ko fay jëlee yóbbu ko fu mu du ruuree lii màtt na la nekk nag màttati waaye réew mi xamuñu dara maa la mën a waatal ci sëñ Touba nii sëñ Touba nee na ak ak ak Kaaba ga ak malaaykat mu xalam yi yàlla dàqati na ko indi ko Touba ah, ah, waa palais de la république fi mu ne woon ñu hmm. ngi hmm. moo nekkoon capital ba waaw capital bi nekkul woon Ndar ok dañ ko fa jëlee tax na taayaa teg ah déedéet noonu la ma Makka ak Madina ak Touba Njaareem demee hmm. bu mu ñëpp mën a xam nag baatin bu dee bu nekkee ci néeg bu fa dee jógee néeg ba du toj am na ci xam ne sax loolu dee su ko wax ci rajo. Mm-hmm. tubaab de ko secret la fekk ñu ni ko sàmm ruurul dafay ne mm-hmm. yàlla bu la sàggan bu sàggane ba noppi koo sàmm yàlla na ko fay jële yóbbu ko fa ko neex maa ko wax man sëñ ci fal de ko secret la waa dégg nga ma. waaw dégg naa la. te kon foofu suul boo jotee ak sëñ tubaab dara bi nga mucc. Mm-hmm. moom Mbaye si sama xarit ba sama sëriñ ba dara wax ni am ñëw dina jóge Touba ñu di ko caw waaye malaayka yi koy caw du romb sama kër gi jëm jaari jëm Touba yal na yàlla defal bëgg ak topp. amiin defal nu ko ragal yàlla ak bëgg sëñ Touba. Mhm. ab a ragal yàlla di liggéey bu ko defee rek mucc. Mhm. si la tàmm nañu nag bu nuy waxtaanee kilifa ak. Euh, euh, ñoo xam ni daal ay royukaay lañu yoo xam ni kenn natable wu ko ñu ñëw nag ci seeni jikko jukki ci yenn donte mënuñoo jeexal yépp waaye ñu jukki ci yenn yoo xam ne ku ko dégg tey danga am foo teg sa tànk xam ne kat kii war naa koo mën a topp te jàpp lii ci ay jikkoom ngir ma mucc. jikko yi war a jikko yi war a am yépp yépp yépp. Hmm. boo xoolee jëmmi sëñ Muntaxa muy jëf ak wax da koy gis ñun hmm. ci ab jaam mu war ne mel mi ngi ci sëñ Muntaxa. Hmm. boo demee ci sëriñ Seexum sëñ Saliou ma nga ca. da ci am yoo xamante nii maanaam ma tudd ñi gën a euh, doon tuut tànk sax ndax ñooñu ñooy yónni mbooloo mi mm-hmm. sëñ Moustapha sëñ Saliou mii ñi ma tudd ba ca sëñ siid yi mu baax mais mm-hmm. bu ko mu dem mm-hmm. xool xool ni sëñ Moustapha Saliou mel boo duggee këram keesu soxnaam yi boo jaarul néegam doo fa dugg réew mi kenn xamu ci soxna sëñ si Saliou ku dul ku moom mbaa ngay noonu mooy loolu càmm ak lislaam kër goo kër boo fa duggee góor jeeg jigéen ñeen seen seen i basak di lenn ñuy jaxasoo a ko dikk loolu foofa lislaam bëriwu fa. dëgg la góor day beru jigéen beru. bu mhm. ñu mënta ñàkk a gisee bu gisee gisee ci wax leen war a wax kenn ku ne dem sa place. Mhm. mboolem loo may laaj ma nga tuuba. Mhm. Soxna Fall dafa wax ni ñetti kees ci kër ñetti kaas ci kër doy na jaamu yàlla. góor gu loolu ni moom doo bëgg a dem ci yàlla. fa muy reere taqali ko fu jigéen ñi reere néew ma dina dem dina yéex. jigéen demul te du la bàyyi nga dem. <laughs> mbaa jigéen ñi duñ la mere si la ah mbaa jigéen ñi duñ la mere. ah demulu de ndax ah, seen bopp da leen a ñor lool ku sa bopp gën a ñor yàlla doo am yàlla boo ko ci sa borom kër xanaa xamoon ne jigéen ñi seen mbir ngi ci seen i borom kër. Mm-hmm. ku sa ku te am nga sa ngërëmul borom kër. Mm. sa borom kër yi taw bi ba am ngërëmul sëñ rek nga jàll waaye jigéen ñi bu ñu la seen i jëf duñ dem fem de. <laughs> na nu yàlla yërëm. waaw yàlla nu yàlla yërëm man daal li ma ci xam mooy. Mm. borom kër topp sëriñ bi jigéen topp borom këram rek doom topp leen. aji nga jiit li la. waaw mais borom kër bu am wasila wu mu fonk. na mu def wasila wat def ko ni rek. Mm-hmm. man de naa ko wax ci télé yi dinaa leen ni man ci sëñ bi ay nekk soxla yi ne ci man lu ma am leen. Mm-hmm. <laughs> ñu ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak euh, royukaay gi nga xam ne doon na ko loolu itam amul xel ñaar. li ma la wax li ma la wax léegi gis nga suñu taxaw bi. waaw ku di mu ku di mu xool ko te jàngoo. Mhm. ab daf nga. murit boo xam ne nga bëgg a liggéey sëñ Bamba topp ko am ci moom cër. Mhm. royal Cheikh Muntaxa murit yu roy sëñ sëñ Cheikh Jëmb am di xabi xam nga sëñ bi murit bi bokkul. Mhm. sëñ bi fa yàlla la jëm murid bi ci sëñ bi na jëm sëñ mu taxaw ma nga jëm ca yàlla hmm. ñun murid men jëm ci moom rek ba àggee nañ ñu fa maa waay sëñ bi yëf yi yomb na de hmm. xam xamoon ni jàng yàggul hmm. saaba yi waaw daan àndal danaan toog fi ñoom rek di xool rek ñun def ñu def ko ba yàgg ñu mokkal waaw bind nii ak jàng ak looyu alxuraan li saaba ko fi dëkk sax bu fi njëkk alxuraan mhm. te teewul kaay gën na am cër Ousmane cëram bi ma la wax léegi juróom-ñaar fukki junni yi yi muy ramb mhm. waaye yonente rek ko ñaanal yàlla de ca jàkk ja waaye ab dund ko ko may de mhm. ay nit day tabewaay nit day laabir nit day bëgg lu baax nit day yërëm mbokkum jullitam nit day day day day yaa a nga jullee ko woor rek di ba dee koo joggi gaañ ko koo tamit doo ko dimbali yooyu duñ jullit am naa fekk dina jullit na woor waaw mm-hmm. naa am sa alal ju la leew nga joxe ko ba mu jeex nga toog di xool daa fekk lu ko def de wàq mm-hmm. yi doyul de nan laa biir te dimbalante te bëggante te moytonte te ba yàq derum nit yooyu mu solo day yàqu julli mm-hmm. julli dëkk dëkk dëkk dëkk day laab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëmm bu xol ba baaxee léppam baax na waaye bu xol ba safaanoo daraam baaxu dëgg la nit xool ak jikko Mhm. waaye naka laa laa xoolee xalaat seen yonent bi gënulu ci ndey gënulu ci baay ji ji ko leen gën. Mhm. kon nan defat jikko yi. Mhm. fi ñuy jeexalee rek mooy ci màggal gi si la. ah màggal gi nag de mooy affaire nag. sëñ nee na. baa yaa ngi may dégg. bu baax si la maa ngi ñaar bu ñu bokkee neefi barab. kenn ku ne man dara. kii fab li mu yor def ko ci magal gi kay di ko seetaan kii fab alalam def ko ci magal gi dina ko rawe dina ko ko yow man xiyaam mm-hmm. gis naa ko ko yóbbu juróom-ñaari xar ñu ne ginnaaw suba la tabaski mm-hmm. sëñ bi ni ko loo jublu ci li mu ko bisub Ibrahima Xalilulaay ak Ismaayila doom ja mm-hmm. mu ne ko nun ko lu nam sëñ Baba ma ko defal ñoom nag defal nan seen ñooñ xar yi nag ma ko dencee ba bisub magal bi ban suba la magal gënal ma ko noonu naam sëñ Bamba na ko def xanaa xamoon jeeg bu ayee ba fégal raxase damam dëpp toog ci man laam ji tey fuddalam nga xiw di ko xaaraan bàyyi jeeg bi na nagam di tànnum téeram di rusi doo lekk hmm. gaa yu jëkk yéen ñan lañeen lan defal loolu sëñ Bamba nu defal nan yem ci moom man bëgguma xam kenn ku dul sëñ Tuubaa macha allah waaw sëñ Tuubaa ci laa tàmbali ci laa yem ndax lim yar du jeex hmm. sukk ci ndam loolu jeex nga ngay yëg sa loxo di xaaraan ko yàkkagul dinaa <laughs> nan nu dimbali déggoo ñu naan diw daa xew man leen daa xam li xew <laughs> li xew. Uh-huh. ku ko xamul doo xew ci biir li xew lees di xewee ku xamul li xew doo xew sëñ Ba maa xew. Uh-huh. bul wax kenn lu ñaaw bul gàmbaasu kenn waaye waxal baaxul sëñ Tuubaa yi kenn ku ne am na ci droit. Uh-huh. sëñ Tuubaa rek a fi ne. ndax fa mu ne kenn fekk ko fa. dëgg léegi mooy tànnu njabootam nee na ci biir tànn fi yonent bi laa tànn. Mhm. yàlla bind Moustapha tànn. Mhm. yàlla tànn la mu bàyyi lam dese ñëw ci ñi yonent bi tànn tànnaat ci moo tax murid du kenn. Mhm. ah bala ngaa doon murid da ngay doon julit. dëgg la si bala ngaa doon ah, ah, ah, ab julit bu doxee taalibe la taalibe bu dox murid la murid bu dox saadiq la. saadiq amul morom. waaw yàlla ko yàlla dem. sëñ Touba moomu lañ doon waxtaanee lay taayal waxtaan wi euh, di euh, génnuk àddunaam euh, fukki fan ak juróom-ñeent weeru juillet atum vingt 1927 kon ñu ngi ci weeru juillet weesu 19 yàggul dara bëggoon a rek baaxee li murit yi jëm ci yoonu màggal gi si la xanaa ma ñaan la rek boo nu mënee yëkkatil tuuti xasida dañu tëjee ko daa di bégal noppi ah. tuuti. yaa man yoroo mu defar kullu daay falaatu waa fi ma labal sifaay ودم عليه مسائي وسبح واخلص التلون سبحانه وفلح باسم ربنا وجاه المصطفى sala alayhi rabbuna ka mustafa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin cheikh mudu fallu fall billahi moo di yaaram warmaa ngor ak ndigal la ku bëgg a dem na topp fallu laayi gi gaar a déq ba jëm jinaanu laayi yaa jom ak jàmm am nga sutura boole ki tegin faa sa jëf du kasala aali yotog tuba boogum ndindi tuba sunu carrière ba yaalu gindi àllu bundoo ba xam na fallu laayi ci ànd noome joonen ahlu gundu laayi wattu na alquran xam-xam laq naaye ngërëm yu ànd na ndam cheikh fallu xelal mos a jaare ci ndaw fowul bëjante wu nga leen laa law jaaraamaan yoon aminata yow la wóolu kwaan law yow su wóoluwul du kilu dinaa la fan tàmbalee jumaa ji ba maag tekk tab dib alaaji dinaa la as maag bis maag weer ak fan nga bis wa toll woon te weer ak ña ko ba ñëw ci abdoulahi di nga xam ne Cheikh Bamba du am ku matadi xam nga lu tax ma mujjee loolu sëñ mu lu aminta faal laay woy noonu naa bokk ci ñi fi jóge bu yàggul te mel ni gaa yu baax yu njëkk ya. wax ko ma wax ni ko moom ma da nga tudd sa yaay Aminata nga tudd Madina si sa dëkk Jibril la ngi nii Aliou ngi nii Ousmane la ngi aba Ababacar la ngi nii Omar la ngi nii. Mhm. naa bari lu muy nuru Rasulullah ci jikko bëggan alquran lool maandu lool. Mhm. bëgg ndigal lool di ko jëfe lool bari ngërëm lool moo tax muy sama soppe. Mhm. maa ngi ñaan suñu yokk ay leeram te taasuñ ci barkeem amiin ñaanal sama waajur wa taalibeem ba sëriñ Abdoulaye Sylla ci ci la mm-hmm. sama borom yokk ay leeram te taasuñ ci barkeem di ñaanal sëñ Babacar Sylla sama sëriñ mm-hmm. yàlla may ko fan may ko mu jekku ndigal yóbbaale nu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim si la jërëjëf amoon nañu mbégte lool dalal la ci waxtaan wi di rafetlu lool itam uh, waxtaan wi macha allah am na solo gërëm Cheikh Alassane Sène ni nga ko waxee jërëjëf yàlla yàlla fajaaju yëpp amiin si la kon mbokk yi di lañ leen indiloon ci démb ak tey amoon mbégte lool dalal ci Serigne Sylla Baye Fall bu Massalikul Jinaan uh, ñëpp xam ko fa macha allah di gërëm bu baax ñi doon déglu gërëm itam jaawu jàllu mi fare woon ci machine bi Fatou Thiam nga mu ne woon ci kàddu gi dig daje beneen ak keneen jëf ñu yendoo jàmm